first lady bu Gambia bu mu ñëwut amuloo benn disappointment parce que nga xew xewle euh, nga romb ñëpp ne ah suñ first lady dañ ko invite ñëwul amuloo benn disappointment. wal xam nga um, uh, ñoom tamit seen yu doo dee xam waaye xëy na ñu gën mooy moom suñ ko jiitalee si dara mu ñëw waaye xam nga su mënta ñëw tamit ñun xamuñu woon lan moo taxoon exactly ñëwut. waaye um, depuis boobu ba tey wax dëgg yàlla su dee comme yëgoon ngeen suma broda génnoon na àddina yooyu yëpp xool na ma you know jaale na ma ak yooyu waaye xëj na loolu time bi mu ko fekkoon mënutoon a ñëw waaye euh, ñun melewuñ ko si nit ñi nag ñoo ko doon jël di ko blow out of proportion because xam nga nit ñi leen laa seetlu man politician yi ñoom ñu bari almost toog naa ak ñëpp toog naa lawyer daa boo am naa opportunity toog ak président Adama Barrow euh, Sidia Jatta moom suma xarit la dee wax léegi léegi soo ñoom niñ mel ak ñi nga xam ne ñoo leen dee support niñ mel du beena xam nga ñoom yenn saa yi man léegi xam naa loolu bi ma toogee ñoom seen boppa because ñun ñi leen di support ñoom dañuy jël lu nekk yuuxu ko def ko fu nekk def ko problème di saaga nit ñi waaye ñoom xëj na yenn saa yi loolu ñëwut si ñoom jógeewut si ñoom so xëj na am na yu ci am yoo xam ne man defoon na ba ma mer ma defoon na vidéo because nit ñooñu noonu waaye léegi at least war toog naa mun a ràññee ne ñooñu they not speaking for them so ñooñu si ñoom kenn jëralatuma ko wax diggaane yàlla moo tax léegi-léegi kenn nit ñi ne léegi ñu ngi gis ne euh, géej ngaa xuloo géej ngaa wax si Facebook may lay ak kan di ko léegi ba ma demee ba gis lu bari jaratu ko mm-hmm. jaratu ko ay waay waay Gambia jox leen ma seen noppa wax naa leen dama leen naa indil képp koo xam ne yéen a ngi doon laami laami ndax dina ñëw na du ñëw yéen ñu doon wax ne Fatou Camara daf ñoo disappoint yéen ñu doon wax ne ne du ñëw dafa wax ne ne ah dama busy ak lii tey daal questions yëpp fii la moo dal dama koy buy bay buy bay rek laa koy defee nu ma neexee rek defee ko noonu ah Fatou ah, bu boobaa nag ñu gis tamit ne defoon nga fi semester party boo xam ne welcome nga semester yu bari ah, how great is that project Uh, boobu nekkutoon lii li xewoon mooy dama doon bëgg a def uh, rek benn time something ma invite woon first lady We uh, boobu tamit dama waxtaanoon ak moom ma ne ko I think it would be good ngay ñëw si mel nii su ko defee ngay gisanteeg nit ñi ngeen mun a it was kind of like a meet and greet event boo xam ne da ngeen di ñëw yéen ñëpp ngeen nuyu wante ngeen exchange ideas loolu la but loolu was not a programme that was bi ma doon expect pour mu loolu was like a one off and we did it and it was very successful fii lañ ko defee fii itabi état bi neexoon na trop te nit yi ñëwoon nañ am Ben bif ak uh, jabari président Barrow mooy first lady bi uh, parce que gis nañ ne ñëw naa si li nga xam ne moo nekk parti boobu semester party ba den ñëwut si li nga xam ne moo Heroes Award da ngeen am any beef uh, si seen diggante. am na bif nag ak fausse lady nag boobu rëy na xam nga loolu moom bari na sax parce que ñoom nekkuñ nit ñoo xam ne danga leen di gis everyday bay war a ñoom loolu musta am amuñ benn bif lu xew mooy comme li ma la wax dañ invite si event xëy na mënutoon a ñëw euh, léegi nit ñi nga xam ne ñoom dañ fokk ne ñoom dañ jël saayit ñoom ñoo doon jël wax di ko ekkati xam nga di ñu ci boole ak yooyu di ma ci boole loolu moo taxoon rek man ma jugoon wax si waaye bi loolu passé comme li ma la wax man wax naa ak moom téléphone mu amee dëj kool na ma jaale na ma xam nga am nañ jàmm daal waaye euh, ay nit la rek ñi nga xam ne dañ jógoon xam nga ni mu mel rek yenn saa boo nekkee ci pawa dafa am ñuy ñëw nag ne la ñu ne dañuy dem ba mu jeex su ko jarut sax suñu waree def jàmm sa digganteeg nit ñi bëgg nañ recognition Facebook bi nga xam nga Facebook bi yow soo demee xeexal ma su ma su gisul sax nit ñaa maa kool dama gis nga Fatou Tamba la bindal am na ku la saaga waxal na la soo yéen nit ñu bari yooyu lañ dee ba nga xam ne dañoo dem nit ki nga xam ne moom lañ war a soppoo dañ ko war a jàppale waaye ñoom dañ koy far yàqal ko loolu moo nekk di xew Gambia fu mu nekk instead of yow nit nga suspect ne dara xew na fee na nga jëgar yow da ngay dem jël side ba yàqal nit ki so foog naa loolu yëpp xewoon na te man uh, comme ni ma ko waxee bi ma toogee uh, muy looya Ousseynou Dabo muy président Adama Barrow muy yeneen opposition leaders yi gis naa ne ñoom li ñuy wax ak ñi leen toppa li ñuy wax seen they're not singing the same songs Bokut. Mm. xam nga lu ma comme like ñoom foog ma ne yooni nañ kenn fitna mm-hmm. fa naa ñooñu tam ñu bari dañ bugg recognition ñoom nag waxuñ ma ne ñun yoone wuñ kenn waxuñ mako. ko waaye déglu leen ñoom li ñu wax ak ni ñuy waxee moo may ne ma ni nekkuñ ñoo xam ne dañ jóg di yooni ay nit pour ñu may saaga man mm-hmm. loolu man xam naa ko mm-hmm. léegi waaw ñu gis tamit ne yaa ngi am uh, very good relationship ak ki nga xam ne mooy Fatou Ceesay mi nga xam ne mooy liggéey ak First Lady uh, si fi nga xam ne moo nekk Fatou Ba Barrow Foundation and the same time mu nekk uh, ku rëy si NPP mu nekk sa personal friend and the same time yow tamit uh, sometimes gis ñeneen ñu ngi fight di wane ah, first lady bi dafa tooñ Fatou Camara dafa lii Fatou Camara naka nga réconcilier ñaari nga nekk di ànd ak kii and the same time tamit kooku mu ngi liggéey ak keneen waaw wax nga ñoom ñaar tamit duñ friends foog naa comme li nga wax liggéey lañ am Fatou man xam naa ko bi impasse bi amee si laa ko xam Euh, time boobu mu ngi liggéey mu ngi doon compagnie bi immediate money transfer mu nekk koo xam ne dafa feyoon si ñun advertisement léegi euh, depuis boobu léegi-léegi suñ friyee te moom tamit nekkut comme ni ki euh, xarit boo xam ne yéen na dafa dama xam yaayam mu xam suma yaay ma xam papa mu xam suma papa déedéet léegi-léegi la nii rek suñ toogee si ngoon kenn deful dara mu kool ma bi ko man maamu mi dañ bëgg a tii mint tii so suñ toogee defuñ dara nii léegi-léegi ñu dem toog benn place naan mint tii you know waxtaan waaye moom tamit xam nga euh, fële la yàgg dafa yàgg Angleterre euh, xam na àddina xam na ne nit ñi moom ku nekk sa diggante nit ki moo gën a important euh, moom respect na boo boosam yi respect na président respect na first lady man am naa respect pour ñoom as first lady ak président waaye ñun ak man ak faatu suñ diggante dafa passé foofu parce que man duma disrespect ñi mu respect moom tamit du disrespect man ñi ma respect soo ñun ku nekk am nañ fu ñuy am politique bi boolewuñu daal ñun ñaar dañuy dem teg ko ci ay suñu idea ku nekk lan lay crédit ko moom tam jigéen bu euh, mun a liggéey la. waaw waaye Fatou euh, sometimes ku nekk xam naa. liggéey nu dee mel nga liggéey ak mhm. nit ki ko lool am soo ma respect ko kooku nga toog kooku ay fan sam ñu toog di saaga sa boos te yow kooku yéen ay ànd duñ ñëw tamit na la waxalal ñii nii oo oh, déedéet ñii lu ñoo def nii rafetut mosu am eni ak moom tam mu ngi gis ñu ma doon saaga man tam xam nga soo loolu laa wax ne bi ma demee ba gis loolu ñun ñëpp xam nañ ne yooyu noonu jaru ko parce que euh, ñooñu tam xëy na dañ bëggoon recognition génn saaga waaye su loolu amee bañ dem ba ñun ñëpp ku nekk gis ne waa lii yëpp sax nda jaroon lan na ko fi jar xam nga di nga xam faatu moom yooyu duñ ko duñ si wax sax yooyu duñ ci discuter parce que xam naa moom nu mel ci président Barrow xam naa moom nu mu mel ci First Lady Fatoumata Barrow soo maanaam moom suñu wax àggul si ñooñu parce que naa ne biñ doolee di ànd ñi bëggoon a yàq xel yi First Family bi affaire am dañ ko doon wax sax ne faatu lu dee xew fii yëpp faatu moo ko dee wax faatu te loolu loolu mosoon naa ko adresse benn time ma wax leen man nii duma benn nit pour mu wax ma information si ñu may àndal ñun bi ñuy liggéey fii di génne information si taami Yaaya Jammeh kenn kenn ñeneen ñu doon jox ñun dañ ko doon utal suñu bopp media soo si nekkee information pour nga am ko moo gën a moo gën a yomba waaye dama dee wax nit ñi ne benn affaire lañ xamut because eh, lu bari nit ñi ne ñoo ne taami Yaaya Jammeh yeneen doon bindal yeneen doon def lii defatu leen ko ñun nekkatuñ si dictatorship si démocratie lañ nekk lan moo tax man maay daw ci gannaaw kenn di ut information a ah, faatu xew fële wax la ñu ko I don't need lu ma bugg xam suñu office dinañ ekkati seen téléphone ñu call state house ñu call director of press na ko lii lañ dégg ne moo xew naka la government spokesperson bi mu ngi fa Sankare suñ buggee xam dara dañuy ekkati suñu téléphone ñu call ko ne ko naka la soo fu mu nekk nii kenn moo war a woori information ne kii dafay daw wax kële loolu dafa jeex loolu si dictatorship la dee am waaye ci démocratie kenn du dee daw di nëbbu di wax information noonu loo bëgg a xam da koy xam.